ñaareelu xaaj bi ci ñetti xaaj yi ci sunuy ndaje dinañu màggal yàlla te di ko sant ci lu mu def lépp te itam dinañu jéem a gën a xam yàlla tey wut lu ko neex ci lu ñuy def lépp Pool ci bataaxal bi mu bind waa Kolos ci téere kóllëre gu bees gi nee na ci na jàmm ji Kirist di joxe noot seeni xol ndaxte yàlla woo na leen ci loolu mel ni ay cër yu bokk benn yaram te gërëm leen yàlla na kàddu kirist dëkk ci yéen bay baawaan ngeen di jàngalante ak artonte ci seen biir ak xel mu mat sëkk di woy ak gërëm yàlla ak seen xol bépp ay taalifi saboor ay kañ yàlla ak ay sant yu tukkee ci xel mu yàlla te lu ngeen mën a def muy ci wax mbaa ci jëf wéer leen ko ci tur borom bi yéesu jaare ci moom gërëm yàlla baay bi kolos saar ñett aaya fukk ak juróom ba aaya fukk ak juróom ñaar mën nañu màggal yàlla te àndandoo ak moom jaare ko ci woy ñaan seede jàng kàddoom ak di xamle kàddoom dinañu waxtaan ci yooyu woy yi ñuy woy war nañu wone sunu cofeel ci yàlla ci biir woy yi dinañu màggal yàlla te di ko ci sant ngir li mu def ak li mu nar a def fental sunu bopp ay woy lu baax la mën nañu ba tey tibbee ci téere bu sell bi ay saar def leen ay woy woy yooyu nanu leen woyee ni waa réew mi di woye daawuda bind na ay woy yu bare ci téere saboor yu mu jagleel yàlla mbooloom gox bu nekk mooy tànnal boppam ay woyam mooy tànnal itam naka lañu leen di woye ñaan yi ñaan mooy wax ak yàlla mbind mu sell mi nee na fii laay tàmbalee nag maa ngi leen di dénk ngeen yóbbu ñépp fa yàlla ci ñaan ak tinu ak i ngërëm benn timote saar ñaar aaya benn bu nit ki dee ñaan ci kaw ñi ci des mën nañu ko déglu ànd ceeg moom bu noppee ñu ne amiin mën nañu ñaan itam ci sunu xel turu yéesu lañu war a tëjee sunuy ñaan sax ñu di ko def mooy yeesu moo di sunu ràmmukat te moo ñu jubale ak yàlla yeesoo nga ca ndeyjooru yàlla te di nu fa ñaan ponk yu bare la te wuute benn màggal yàlla mooy sant ko ci li mu doon. ñaar tuub mooy nangu ne tooñ nañu yàlla te rëccu ko. ñett gërëm yàlla mooy sant ko ci lépp li mu def. ñeent sàkku ci yàlla mooy ñaan yàlla mu dimbali nu ci sunu dund ak ci dund ñeneen ñi. téere bi nee na waruñu noppee ñaan yàlla maanaam fu nu toll ak saa su nekk war nañuy ñaan yàlla ci sunu xel mën nañu sukk walla ñu taxaw mën nañu gëmm walla ñuy xoole loolu amu ci benn solo ni nuy ñaane dafa mel ni woy yi rekk mu ngi aju ci waaw mbooloo mi ci gox bu nekk léegi ma laaj leen ñett lu tax ñuy ñaan ci turu yeesu ndaxte bàkkaarkat lañu kon mënuñu jege yàlla aji sell ji bu dul ci tuuru yeesu ndax deretam ji mu tuur ndaxte yeesoo nga ca ndeyjooru yàlla te dinu fa ràmmu ñeent yan ponk ñoo nekk ci ñaan màggal yàlla tuub gërëm yàlla ak sàkku ci yàlla